ci benn tàkkusaan ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na. daje nekkoon daje bu am solo seen diggante ak le de des sports mën nañu xam waxtaan wi nag ngeen ko tënkee ak est déggoo ngeen ci ay kàddu. waaw Bour ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu presse bi nga xam ne ñoo fi teew yëpp di vraiment am mbégte bu baax ci vraiment ñi ngeen fi teewee pour li nga xamante ne ni moom lañ doon waxtaan ak ministre des sports tey ah, yaakaar naa wax ju am solo lañ waroon a wax tey ak ñoom te ku ne xam na lamb fi mu toll ku ne xam na daya bi làmb am ci réew mi ak jafe-jafe am ci làmb fan yi jàpp naa ne avant circulaire bi nga xam ne CNG yéene na ko semaine passée ñun jàppoon nañu jàppoon nañu réunion pour daje ak ministre des sports pour waxtaan ak moom ci jafe-jafe làmb tey nag li ñu fendi woon mooy jafe-jafe làmb ci Covid bi ni mu demee ñaareel bi mooy circulaire bi nga xam ne ni CNG bindoon na ko envoyé ko promoteur yi comme moom mooy kilifa gu mag gi nag ah ñu ñëw pour sootanteeg moom ay xalaat ci li nga xam ne loolu moom moo am ci làmb ji ndax ñun tey du ñu gis fenn foo xam ne ni insiste dafay am wala tey dañuy gis loo xam ne ni ñuy def promoteur loo xam ne ni jaaduwul mhm. ndax jàpp nañ ne fi réew tool toll ak mbas mi promoteurs yi rey seen bopp yor ay combat yoo ne daaw lañ ko régulé daaw lañ ko joxe woon avance dem di ko régulariser ñu ne leen mënu leen ko régulariser ndax da ngeen di joxe caution 1 million kon loolu daaw la commencé woon bi loolu amee ñun ñu waxoon ne duñ joxe 1 million ndax li tax mooy mënuñu koo joxe ay caution ci hors saison mooy dem ba saison bi waaye jeex biñ discuter ci loolu yàlla dogal mbas mi ñëw bi mbas mi ñëwee ñun nekkaat ci li nga xam ne mooy ouverture saison ouverture saison nag ni muy doxee chaque jour dañ naan promoteur bi jiitu mooy jël datam bi ci topp topp ci ki ci topp topp ci ba mu jeex ñu gis ne pour saison bi loolu gisuñu ko ci bi ñu ko ci gisul ni ñu ko gisee mooy dañuy dañoo sentir ne dafa am kumba nday am kumba am nday kumba nday wala ñu am ñu ñuy favoriser te ñun loolu yaakaar naa fii ak deux ans trois ans quatre ans cinq ans dix ans ci ginnaaw ñu ngi woon ci làmb ji di ci rey suñu bopp kon waruñoo favoriser kenn pour ay intérêt personnel bi ñu gisee loolu nag gis nañ loolu ñu gisee loolu ñu ne a ah, nañu xool nan la ñuy saisir ministre bi pour ñu waxtaan ci ak moom xool nan la ñuy delloowaate promoteur yi àq bi ñu am ak gëdd bi am ndax gis nañ fu ngeen ci toll d'accord ngeen ci wala loolu moom li ñu waxoon lañ ciy waxaat d'accord uñu ci waxtaan nañ ci kilifa gi nee dina ubbi waxtaan boo xamante ne ni dina yaatu suñu diggante ak CNG pour jàmm mën a am ñun nag jàmm la ñuy wut ndax yaakaar naa lamb moom jàmm ci jàmm la xaj en tout cas ñun d'accorduñ ci position bi ñu nekkoon fa lañ nekk comme kilifa gi nag seet si nañ ko moom nee dina jël ay responsabilité waxtaan ak kilifa yëpp pour ñu daje ñun waxtaan suñu biir ba juboo ñoo ak CNG ñun dàquñu loolu ñu ngi xaar waxtaan boobu suñu déggoo ak CNG bisimilah buñ déggoowut ah ñu xam amul lan ngeen compté pour def ndax kuréel ngeen waaw liñ compté pour def mooy wax nañ ko wax nañ ko en tout cas moom nee na dina jël ay mesures exceptionnelles moom ministre bi mi euh, mesures yooyu muy jël ñu ngi koy xaar ñu waxtaan bu ñu waxtaanee bu ñu déggoo rek incha allahu rabbi am nañ yaakaar ne ñun déggoo mooñ tax a it ñoom bu fekk fal pour defar lamb yaakaar naa waruñoo mën a xañ déggoo bi en tout daal li am solo mooy ñu ngi toog di xaar ndaje mi am su ndaje mi amee su déggoo amee yaakaar naa presse bi dañ ko teyewaat comme niñ ko teye woon dama bëggoon mooy xamoon moo tax d'accord leen ci ci caution yi moo ci nekk ba lu tax lu tax ngeen d'accord leen non xam nga ñun bi ñuy jënd licence su fekkoon dañ ñëwoon wax ne nii la lamb yi doxee mooy texte yi la CNG yor mooy booy tëgg lamb da nga joxe caution un million kon jàpp naa ne kenn du ko werante mais fi réew mi toll ak mbas mi jàpp naa ne promoteur yor seen xaalis depuis daaw am ay combat ne taxawal nañ ko depuis daaw mu ñu bëgg ko régulariser mënuñu ko régulariser am ay jafe-jafe kon jàpp naa ne ñooñu boo leen yokkalul doole waroo leen a xañ dara te dañoo gis ne dañuy xañ pour niwal ñu doole te ñun réew mi ñu nekk mënuñu fee niwal doole te duñ ko nangu sànq également wax nga ah, ay parparloo yu ci am jàpp ne moom la ñu favori waaw non xam nga tey bu ñu gisee non bu ñu gisee non si bu ñu gisee tey bu ñu gisee tey fi ñuy waxee nii nee régulariser nañ combat Balla Gaye ki nga xam ne mooy Bombardier yaakaar naa loolu du lu jaadu ci làmb ndax ñun dañoo am ay combat yoo xam ne mbër yi joxoon nañ leen xaalis daaw tey mbër yooyu war a bëre mënuñoo bëre ñu gis ne ñu ngi taxawal yeneen combat yoo xam ne ñu ngi koy régulariser vraiment sénégalais yi ko rafetlu ba pare ñun ñoom ñu ñuy jël di ñuy jal ci kaw mbër yi nga xam ne tëggoon nañ leen te loolu waruñu ko nungu ay wax nag kenn du ko raay dangay ngay wax li nga xam te ni moo am wax li nga xam ne mooy réalité pour sénégalais yi mën a dégg maanaam kon yow li ngay wax mooy du seen arrangement du arrangement mbëri parce que mbëri dañoo war a bàyyi bañ génn ci contrat boo bëggee dégg-dégg ñu ngi teg ay pression yu metti pression yi ñu teg mooy gis nañ ne ñu ngi régulariser ay combat yoo xam ne nii yàggul dara ci biir Covid bi la amoon te ñu ba daaloon lan moo tax mënuñu koo régulariser te loolu lépp ay faveur la yoo xam ne nii CNG moo koy favoriser ay promoteur bàyyi ñu te loolu ñun duñ ko d'accord tey duñ ko d'accord suba non li ciy pexe comme li ñu ko waxee ministre bi ne dañuy waxtaan suñu waxtaanee waxtaan bi jeexul am nañ acte deux acte 1 acte 1 bi tey tey la woon am nañ ak am nañ acte trois acte trois ba nag buñ ca àggee ah sénégalais yi dinañ xam liñ bëgg bu neexee yàlla waaw Fallou ñu dem ci wàllu subvention bi boobu tamit waxtaan bi yàgg na ci biir je pense que am na lu lu ngeen ci tënk lan la leen loolu moom tënk na ci lu leer wax nañu ci lu leer nee na bi ñuy wax subvention boobu covid moo taxoon ñu ne dañuy def huis clos comme amagul kilifa gi ñu joxoon loolu pour mu def ko dindi nañ lépp kon benn procédure la boo xam dañ a waxtaanaat moom dina ci waxtaan ak pour ñu xool na lañuy jàppalee làmb ba tey ko loolu la ci wax taxawaayu CNG ci loolu la ngeen ci ngeen ci am ci taxawaayam. comme lan. comme li nga xam ne moom la ministre bi di wax ak yéen. waaw xam nga tey moom bu nee day day day day fexe ñu fexe waxtaan ba déggoo. yaakaar naa loolu mooy rôle ministre bi moom nee na dina fexe promoteur yi waxtaan CNG waxtaan ba ku ne am loo bàyyi pour ñu mën a déggoo. ñu ngi xaar loolu ñun fa dàqu ñu waxtaan ak CNG dàqu ñu waxtaan ak ministre bi di bàyyi. sama waa ji wax ko ci tubaab. est-ce que bokk na ci ndax saison bi daa nekkoon ci ay jafe ñu gis nga ne par parloo te loolu mooy li nga xam ne mooy combat Balla Gaye kii bi. non non non bu non euh, li ñuy wax sénégalais yi ñoom ñoo ñoo ñu gën a xam gën ñu koo gis. ndax tey jii ñun dañoo am ay mbër c'est-à-dire il faut ñu wax ci presse pour nit ñi xam. dañoo am ay mbër yoo xam ne depuis daaw lañ jëloon avance ñoom bu ñu jëlee avance depuis daaw gis ay combat yoo xam ne ren lañ ko taxawal ñuy régulariser combat yi au niveau de CNG ñooy mbëri nañ ñu woo ñun teg ñu ay pression pression yooyu ñu teg nag il faut ñu leeral ko askan wi xam ne ñun du ci ñun fautu CNG la ñoo def loo ni jàpp nañ ne jaaduwul jërëjëf jaajëf yàgg maar comme ni ñu leen koy waxalee di topp lamb rek ci information yi tey ñu ngi fi ministère des sports promoteurs yi ñoo fi doon jàkkaarloo ki nga xamante bi ni mooy Matar Ba ki jiite wàllum sport bi ba tax na tey ginnaaw ba ñu génnee ñu xool ba xam lan la ñuy taataane ñoom lu ñu am si biir ak nan lañ ko fas yéene waxtaan ak li nga xam mooy journaliste yi jam maa moo doon tam maa ngi lay fay di la ziar di la nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di nuyu waa Equivox di nuyu yàgg maar bi nga xam ne moo ne ci caméra bi nga nekk ci micro bi. maa ngi leen di ziar baax di ñaan jàmm di profité waale ci bi di baalu ñëpp ak di baalu ñëpp ak ci ñu nekk di yàlla na yàlla defal jàmm xewal sutura di nuyu Sénégal yëpp di nuyu njabootu Gambie yëpp moo doon am na solo tey ministre bi da leen a dalaloon bi ngeen duggee ba génn waxtaan bi ndax déggoo am na wala déggoo am na. waaw yaakaar naa ministre bi dalaloon na promoteurs yi dañu génnee dégg ngeen kilifa yi nga xam ne ñoo yor kàddu promoteurs yi discours yu ñu si def. def nañ si discours yoo xam ne adduna bi yëpp jot nañ si am nañ yaakaar ne lu jamono làmb kanam ak lu avancé loo làmb loolu moo tax a jóg ministre moo tax a jóg promoteurs yi te am nañ yaakaar ne waxtaan dina am te juboo dina am incha allah. Hmm, te juboo dina am maanaam la ngeen fa tënk lan ngeen si mën a wax ñu xam. waaw loolu ñi nga xam ne ñoo yor kaddu promoteurs yi wax nañ ci. Eh, Fallou bi muy wax sa kanam it am na loolu. waaw dégg ngeen Fallou Ndiaye lim ci wax dégg ngeen Boubacar Niang lim ci wax kii moo yoroon kaddu gi ci olof kii moo yoroon kaddu gi ci France kon ñun jëratul ñu ciy dellu li ñu mën a wax daal mooy ministère bi lu avancé loo lamb moo ko tax a jóg promoteur yi lu avancé loo lamb ñoo leen tax a jóg ndax ñoo jël seen dërëm di ko def ci lamb te nag lamb mënoo ko def da lancé wu doone emploi des jeunes te ñëpp gis nañ ne président de la république di monsieur euh, président Macky weer yëpp lii ay kàddoom lii ay bëgg-bëggam mooy xëyu ndaw ñi emploi des jeunes jaral na ko mu génnee ay milliards pour teg ci table bi su fekkee ne am na ñoo xam ne nii bi loolu yëpp amaguloon ñu ngi góor góor di génnee lu ñu yor di ko ci def kon moom li mu lancé nii ñun promoteurs yi def ñu tey fekkoon kon loolu tamit ñoom nañ ci gën a bàyyi xel xam ne kenn mënul def emploi des jeunes te doo ci boolee njabootu làmb mais jam li leen gën a metti wala ñi metti ci yenn amateuru làmb mooy caution bi nga xamante bi ni CNG bi dañu génn ayu bis ñu génn ne dañ fay teg caution un million doog a tëgg loolu tamit bokk na ci li ngeen doon dénoncé ndax amee ngeen ci satisfaction wala. waaw man li may wax rek ki mën a jox mbër avance mu toog moom ay si mois nga joxe un million du sa problème waaye dafa am loo xam ne nii. mais est ñëpp mën nañ ko joxe non bëgg a ñëw. dafa am loo xam ne nii su amee dafa am lu muy niru dafa am dañ nekk si système mu Covid Covid bi ñëw sonal ñëpp. promoteur yi nekk ci ay jafe-jafe jël sa xaalis joxe ko un an lamb amul loolu rek dafa doy jafe-jafe kon yaakaar naa nu gars yi gën a oyofalee mbir mi moo gën ñu ci yokkaat ci xar mi kalaw loolu yëpp su dalee nit ki nga bëgg a ñëwaat ne ko yow mi joxe woon sa xaalis un an deux ans tëggoo pour nga tëgg da ngay joxewaat beneen un million a ah wax dëgg yàlla loolu day xaw a métti saraxoo gumba bàyyi koog yàlla waanam man li ma gëm mooy nañ créé statut promoteur bu lamb ji di tijji nañ créé ay texte promoteur bu ci nekk ñu yox la ko envoyé la ko na lamb di doxee soo ko accepté d'accord ko nga dagg licence coow li du bëri waaye bu ñu demee ba ci biir làmb ñu lancé ay làmb ji ñëpp dagg licence dem ba ci biir nga door a génnee ay règlement loolu nag day niru loo xam ni luy doy waar la. mais loolu est-ce que waxtaan tey ba mu boor wala ba tey beneen ayu bis. waaw ministre bi mooy li ma la wax dajale ne gars yi kilifa la waxtaan nañ nañu xool ñu CNC ak njabootam di waxtaanee ndax am na ci loo xam ne liggéeyu CNC diggante CNC la ak promoteur bi waaw nañ ñu ubbil porte ñoom it nañ ñu waxtaan juboo solution làmb daal neex naa lijjanti. coow li jërul mu ci bari man su fekkee lamb dafa tijji ñu jox ma texte balaa maa dagg licence jamaïcain war balaa dagg licence war na xam année bi yëpp ban règlement moom war a tegu bu accepté loolu ba signé ko ba dagg licence boobaa coow du ci bëri waaye lii problème bi mooy da ngay ñëw dagg sa licence dem ba ci biir ñu indi la ay règlement yoo xam ne dalay dab loolu soo ko mënul rek day indi coow yu mel noonu daal buñ bëggee lamb ji avancé nañ ci bàyyiwaat xel. moom bu mel ni man. bu dee xeex maa ko daax bu dee bëre maa ko daax.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 ngir bokk ci événement boobu yéen annonceurs yi gaaw leen gaaw jokkoo ak service commercial bu Vox Arena 78 188 30 30 78 188 30 30 Vox Arena l'arène yëngooti na